déglu leen tey ba ma way yàlla buur bi di borom sunu may yi munu may gën lu nu wuti woon ni feneen bu nu santul gore woon yaaramu Serigne Saliou Serigne Béthio yaa di di jaamu Serigne Saliou Allahu bi di feneen bu nu santul gore woon yaaram Serigne Saliou Serigne Béthio yaa di jaamu Serigne Saliou Allahu Serigne Béthio yaa di jaamu Serigne Saliou Allahu déglu leen tay ba ma way yàlla pour bi déglu leen tay ba ma way dem kom gi mu la jox ak jëf gi mu la jox noppi woo am digal ju may jannatu miliyaar yi nga ka doore tay waa jooja fa sëriñ Béthio yaa di buntu sëriñ Saliou Allahu sëriñ Xadim Sam ku la gis dem aljana Babacar ku la gis dem ko jox awunu kenn ba fi dul bi soso ba fi tayya Sëriñ Béthio Sëriñ Saali way ki la joxagul Allah jëriñ nga jëga Sëriñ Béthio Sëriñ Saali way ki la joxagul Allah ku la dis aajo fajal ku la dis karagam allahu ci bay sëriñ Saaliw borom ngee jaar moo jaragam allahu soxna mami jëm ji rek lanu miin jëm ji rek lanu miin jëm ji rek kanu saf fu nu jaan ñaanal ko mu sax am ko jara cakaayu weleen sëriñ Saaliw xalifa ne ko ay maake dund Saaliw ne ko ay Mbacké dundal Saliou Allahu faade ko ay Mbacké dundal Saliou Allahu déglu leen tay ba ma way déglu leen tay ba ma way déglu leen tay ba ma way sunu may mënu may gën lu nu wuti oo ne feneen bu nu santul gore wun yaaram Serigne Saliou Serigne Béthio yaa di jaamu Serigne Saliou Allahu mami borom Bordeaux délégation Serigne Saliou waaw way wi nag ah way des yëpp cantaako ni ñoo ko moom ah dañuy dellu démb nag ana Diya Saliou soxna Dia taalibe Serigne Saliou bu mag bii way wii yow laa ko may Dia xanaa yéen amu leen seetlu Serigne Saliou ak seexam be moo yor njare ta yàlla di waru fu ne kaay fi yàlla ne leer gu yàlla kii dëkk fu ne di tudd ne mel nu ne ma na tu xanaa yéen amu leen seetlu xanaa yéen amu leen seetlu xanaa yéen amu leen seetlu dolores di waru fu ne kay fii la ne ter gi yàlla gi nuku fu ne di tudd nu ne mel nu ne ma nga ful na yërëm ne ko ti jaam bu ko bëgg a bëgg kay jébalu waa njàngi moo jarata sa jóg di la jëfal nit ñi yaa ko xam ak i ba yaa bay taxaw ñu ne yaa jërëjëfal gën a gaaw ma wax la yërmande ñëw na soxna Dia soxna Diba Saliou jërëjëf ara ah jërëjëf sëñ Mohamed Niang jërëjëf ah, defati nga samanin jërëjëf ah, ku jigéen kii nga gis ci kaw mu jigéen jom jigéen fulla jigéen fayda jigéen ngor jigéen personnalité jigéen qualité jigéen maana ah, jigéenum sëriñ Saliou Mbacke soxna Fatou Diakhaté Mohamed ñëw tay ci sa biir soutenir la ànd ak yow bis ba mu jeex Mohamed Dia jox na la sabara ku se jar 2 millions Ah, nee na foo bëgg mu indil la ko day la ko fa indil bu événement bi jàllee kii nag xale jom xale fayda xale ngor xale personnalité borom Siin a ngi borom Dubaay a ngi borom Espagne borom France jàmbaari Serigne Saliou enveloppe bi Mohamed Niang enveloppe état Corrèze la moo la ko jox nee na teg na ci chambre à coucher buy jar 2 millions ak sant ak gërëm ba déwén tàccu lii waaye tàccu loolu waay Mohamed ñaa gisoo ko dara sëñ Saliou day laas maag yow film baa ngi ci kanam dama ne jigéen ju baax tabaarkalla mooy mooy mooy ànd ak jigéen ju baax taxaw fii nga taxaw Serigne Saliou indi la fi nga ñëw jàkkaarloog Mohamed ñaa tabaarkalla na damay jëflante moom ci Serigne saaliw borom jurul borom xabaan borom ñaari daari si aagu tabaarkalla Mohamed ñaa bëgg gu ne ko koy fay lii nga def tabaarkalla boo yónnoon mu doy nga ànd ak say bokk ànd ak say càmmiñ ànd ak say dëkkandoo na jàkkaarloog ma xam ne ñaa na kan laay jëflanteeg Serigne Saliou yàlla na la yàlla defal jàmm kontaan nañu bég nañu. Euh, jigéen ji bu fi ñëwaatee Mohamed di nga xam ne dikkaat na fi waaye sabra ko si foo bëgg ñu indil la ko fa rek dañ la ko fa indil foo bëgg ñu tegal la ko fa rek waxal ñu tegal la ko fa jigéen jee def borom seen borom Dubaay moo def teraanga yi ànd ak délégation nit nag bu dee def baadoo bu dee bu dee jëf du bëgg du bëgg ko waaye kii nag as gor la soo xam ne bu dee jëf ay mbokkam rek lay àndal te ay mbokkam la àndal ñëw jërëjëf kontaan nañu yàlla la Serigne Saliou Faye moom rek a am fay waaw ndeysaan waaw waaw masa ndey jërëjëf jërëjëf Diba kontaan nañu yàlla na sëriñ Saliou yokk say teraanga jërëjëf Yankoba Sané borom sans limite moo fi yónnee waaw mi ngi ñëw léegi waaw gars yi may may profito di sant waa Grand Théâtre waa lépp dina ñëw tey maag yéen ba fajar maag ba fajar tey dañuy sant Serigne Saliou loolu su ma ko waxee defe naa waa Grand Théâtre dinañ ma ko may ndax xam ngeen ni événement bii dañ ci ànd ak waa Grand Théâtre ren waa Grand Théâtre la àndal ci événement bii ñoom ñoo def événement bi ma leen di gërëm di leen sant ndax kat wax dëgg yàlla yéene képp moo tax ndax ku ne xam na ni jamono ji jamono ju doy waar la jàppoon nañu ko manifestation yi xew ñu annulé ko lu bari tax waaye ñoom seen bëgg-bëgg ak seen kóolute ci man ak liggéey bu rafet bi nga xam ne yàgg nañ koo ànd di ko liggéey ñu ne ma Mouhamed Niang date bi doo ko bàyyi danga koy maintenir loolu moo waral tey ñu woote guddi Serigne Saliou Mbacké gi ma ci remercier DG Assoumane mi nga xam ni moo leen yilif ñoom ñëpp Cheikh mi nga xam ne moo ànd ak ñun ci liggéey bi lépp moo ko coordonné maa ngi lay remercier bu baax jërëjëf alburax dafa mel ni yanqu ba dalaa yeb lebal fii de jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jëfati Serigne Saliou ne ko ñëpp wax waay na ñëpp wax jëfati sëriñ saaliw Serigne Cheikh Saliou yàlla na fi yàgg lool tànn ak wér waaye Mouhamed Ñang yàlla na yàlla wéral baat bi ñang baanu si mu cërëm a jigéen ñang ma korofa minta nangu mi ci li bag ñang mi ci baagoy boo woyee dangaa war a woy boo woyul dangaa war a woy woy danga ko donn woykat yi yaay seen baay barki Serigne Saliou woykat yi yaay seen baay man nag dama fee ñëwee ñaari partey ndax kii toog di diva Saliou sama yaay la sës lool ci man yëkkati enveloppe bu duun tekk sa loxo ba pare jël chambre à coucher bi jaar deux deux millions daal di ko teg ci yow loolu doyul d'accord loolu doyul ki nga xam ne moo ma yilif di DG bu sanni Limites TV di Yankhoba Sané yëkkati ñaari millions jox ko Mouhamed Niang dama bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax te ñaanalal ma ko ko jërëjëf Yankoba Sané jërëjëf Mouhamed Niang waaye jërëjëf Cheikh Sarr dama bëgg ngeen tàccul ma bu baax a baax seex Sarr ndax ànd ak moom Mouhamed Niang yàgg na lool démb la waaye tey soog a ñëw boobaak léegi dara ñaawul jërëjëf Mouhamed Niang dañoo bëgg nga woy ñu ci Serigne Saliou ndax ñun Serigne Saliou rek la ñu bëgg jërëjëfati Serigne Saliou. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu